tey li ñu fi dajale woon dañoo ñëwoon pour lancer suñu projet bi ñuy tuddee une ambulance pour Mbour une ambulance pour Mbour euh, benn initiative la bu ay ndaw yu dëkk Mbour tuddee seen bopp mouvement des zones solidaires pour l'émergence bu mu muy maanaam benn kuréel bu ëmb ay mag ay jigéen góor ñoo xamante leen mooy mooy seen objectif muy développement ñu fexe ba mu jëm kanam ñu fexe mu jëm kanam si fànn yëpp. mo xam si walu jàng la moo xam si gu yaram la mo xam si wàllu nekkinu doomu aadama bon en même temps que ñu nekkee mouvement aussi nous sommes des citoyens sénégalais bon kon am nañ benn droit de regard benn saytu bu ñuy def par rapport ak li nga xamante ne moom la suñu dëkk di doxee bon par rapport ak loolu ci lañ def ay démarche parce que comme tout mouvement ñun ñëpp souci bi ñëpp am fekk ay at bañ nekk tout temps ñu koy dégg muy problème hôpital Mbour bon ci kaw loolu fekk ay weer toog nañ di si waxtaan ak ñoom di si def ay démarches bañ demee gis autorités yi nga xamante ne ñoo jiite hôpital bi ñu expliqué ak ñoom ñu wax ñu problème nga xamante ne moom la hôpital bu départemental bu Mbour bi di bi nga xamante ne moo ñu gën a soxal muy problème ambulance bon parce que bu ñu defee benn taxaw seetlu ambulance bi bi nga xamante ne moo nekk mu depuis 2014 ambulance bi benn bu fonctionnel moo fi nekk. et ambulance bi en panne dafa bari ambulance bi l'évacuation gérer évacuation maternité bi ma matu wa pédiatrie ak urgence en plus de cela bo xolé poste de santé yi nga xamantene ño commune de Mbour rek 26 de santé ben centre de santé ak district sanitaire nga xamantene ño ay ku ci am malade tey hôpital bi nga xamante ne mooy département Ndande moom nga koy andi maintenant boo xoolee département boobu yëpp euh, seen patient yëpp di ko évacuer si bi nga xamante ne mooy hôpital départemental boobu bëgg am benn ambulance kese ci kaw loolu ñu def taxaw seetlu gis ne loolu moom benn problème la boo xamante ne il faut ñu jóg si suñu mu teel moo taxoon mouvement Mosem ñu lancé projet bi tuddee ko une ambulance pour Mbour mouvement Mosem ñoo ko initié mais projet Mbour waa yëpp la.

ñu nekk diaspora bi aussi waxtaan si ak nañ si ak ñoom pour xool ensemble nan la ñuy mënee projet yi parce que dañoo jàpp ne en tant que ndaw war ñu toog si bokk ñi nga xamante ne chaque jour dañuy xaar si état peut être domaine sanitaire état yi peut être mu ngi def li nga xamante ne moom la mën mais dañoo gis ne ñun en tant que population war nañ bay suñu waar si ni nga xamante ne moom la suñu dëkk di doxee bu ñu rek toog chaque jour lu ñëw ñuy xaar si état bëgg nañ ci bokk si ñi nga xamante ne ñooy jëriñ suñu gox moo tax projet bii jóg projet bi ñu ko yëkkati loolu kese la fexe bu mburuwaay doté benn ambulance digne de son nom hôpital départemental bu Mbour ba expliquer projet bi nga xamante ne ñoo ŋànk affaire bi yëpp gis nañ ne projet bi coût bi mu ngi toll si 14 millions 600 mille si suñu xaalis maintenant nag euh, boo xoolee semaine bi yëpp fekk depuis 20 jours ñu ngi dox si li nga xamante ne mooy affaire bi am transparence moo tax ba tey instant bi compte bi sax mënaguñ ko mettre à disposition

ñu wàllu suñu hôpital départemental bi nga xamante ni war nañoo war a mën a relever plateau technique bi hôpital bu Mbour bi war na jóge niveau un yéeg niveau deux parce que boo xoolee am na hôpital yoo xamante ne nii ñu ngi niveau deux te boo xoolee en matière d' apport li hôpital départemental bu Mbour di andi ñoom apporté wuñ ko kii dëkkër boobu daal ñu leen koy lancé di woo Mbour waa yëpp sénégalais yëpp ñu ñëw jàpp si.